jël na ko dina ko gën a taral réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu Abdoulaye Diouf Sarr génn na yat wi ci lu jëm ci wàllum respecté mesure barrière yi nee na dañu ko respecté ci réew mi yéen a kaay gii di La Tribune ak Vox Populi ak L'As nee li nga xam ne mooy coronavirus tere na fête d'année yi nga xam ne dañu ko doon amal ci réew mi ndax ministre de l'intérieur di Antoine Félix Abdoulaye Diome moo génne ab arrêté boo xam ne dafay tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum rassemblement ci terrain yi wala plage yi wala salle de spectacle yi ba pare ñuy takk masque bi service service privé gi yéen a kaay gii di lii nga xam ne Abdoulaye Félix Diome daat na koy wax tere lépp loo xam ne jëm na ci wàllum rassemblement ba pare tëj salle de spectacle yi ñi nga xam ne ñooy artistes yi ñoo ci gën a sonn yéen a réew mi quotidien nee na am na benn ministre boo xamante ni njort nañu ne amee na coronavirus ca assemblée nationale libération yéen a kaay nee na ministre bi nga xam ne moom la ñu doon wax ne dafa amee coronavirus Abdoulaye Daouda Diallo la waaye nag daat nañu di Vox Populi na am xam ne ñoo ngi nekk réanimation ñoo ngi nekk Soweta Seras ay cas grave lañ yéen kaay gi du l'Observateur nee na am na juróomi député yoo xamante ni amee nañu woppi coronavirus le témoin nee na ëpp na juróom ñaar fukki député yoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus yéen kaay gi di critique xëy sampab laaj nee na Moustapha Niass mi nga xam ne moo jiite assemblée nationale mbaadu dafa amee coronavirus yéen kaay gi di réew mi quotidien ak le témoin ak le soleil wax ci lu jëm ci wàllum jënd ak njaayum gerte gi yéen kaay gi nee na ñi nga xam ne ñooy waa Sonacos jamono ji sonn nañ ba maara day taali ndax lu toll ci ñetti junni tonnes la ñu am te nag seen objectif dip maanaam li ñu bëgg toll na si ñaari téeméeri junni ci ay tonnes te nag ba léegi nii xaajuñ bay am sa xaaj ba yéen a kaay gi de la sa ñu xëy jànge fane gouvernement face à la presse bi nga xam ne doon nañu ko amal ni ki démb njiitu réew mi di président Macky Sall su dee dafa bëgg sukkandiku ci Abdou Latif Coulibaly ngir defar communication Macky Sall ma ngi koy yàq te nag yaakaaram soo muytuwulee dana tas ndax ni ki démb gouvernement face à la presse Abdou Latif ay nelaw yu metti la fa nekkee woon yéen a kaay gi di réew mi quotidien ak Vox fekk fa Félix Antoine Diome démb ci assemblée assemblée nationale nee na nag bu ñu demee ba yegg sa bépp matukaay boo xam ne war nañu ko jël ngir organiser élection locale yi danañu ko def ci atum 2021 laas yéene kaay moom ministre de l'intérieur démb ci assemblée nationale bëccëgub démb bi dina ko yeex a fàtte ndax ki nga xam ne mooy Toussaint Manga ak Cheikh Abdou Bara Dolly yekk nañu ko musiba ak mbelengaana Toussaint Manga nee ko complot yu rëy yi nga xam ne moo am ci réew mi yëpp yow Antoine Félix Diome sa l ma nga ca te nag démocratie Sénégal bu deltoo bu ñu ko saax-saaxe bu ñu ko yàqee sa loxo ma nga ca biir ndax bokk nga xam ne ñoo tax Karim Wade Khalifa Sall bokkuñu ci élection yi waaye nag lépp loo xamante ni rek am na ci réew mi dafay jeex kaddu Toussaint Mangala ndax nee na ko ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon doon complot ay nit ñu baax ñooñu ñëpp maanaam bis ñëw na réccu nañ ko ndax gis nga Aminata Touré mii nga xam ne tàqalikoo na ak Macky Sall ñu jël ko dugal ko ca poubelle ba te léppay jeex gis nga fi Aminata Touré gis fi Makhtar Cissé gis fi Amadou Ba gis fi Aly Ngouille Ndiaye gis fi Moustapha Diakhaté ñii ñëpp àndoon nañu ak président Macky Sall jamono ji ñoom ñëpp jël nañu leen yóbbu leen ca mbalit ma Cheikh Abdou ministre Antoine Félix Diome bépp liggéey bu salte bu ñaaw bu bon boo xam ne am na ci réew mi yow la ñu ko doon def loo yéen a kaay gi dee sat xëy séq waxtaan wu yaatu ak Marie Aude Diop mi nga xam ne moo nekkoon na jabaru Pape Bouba Diop waxtaan nañ lu yaatu ci biir journal bi wax na ci bu Bouba ëpp maanaam feebar bi ak lan moo tax ñu ko doon nëbb nee na sax jamono ji dafa ragal a dellu fi nga xam ne mooy lance la ko waral nee na dafay bañ a gis image yi xam ne doon na ko dund ak Pape Bouba Diop nee na ma Sénégal ak njaboot gi wax na ni nga xam ne moom la duggee ci diine l'islam nee na sax jamono